Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah dañoo des fois rek ci Cheikh Abdou Karim Abdou Karim euh delu kep di soñat sénégalais yi eh, mbir la moo xam ñun ñëpp la concerné té euh yalla waré na ci lo xamné ne sénégalais mu war na ko xam le gouvernement sénégalais. est prêt pour tout, pour tout, pour confisquer la république euh, posé ne doomu aadama ak lekk laax lan yemale ni ñu tëjee nit ñi ci kaso yi te defuñu dara booy xool li en douce moo ëpp waaye kenn du ko xam kilifa yi fi jógee barina. na ci xew xewle ak Macky Sall kilifa yi fi jógee bu ngeen leen doon wàññi ëpp na fukk ak ñaar wala mu jege ko lool te yàlla dogal ñun gëmuñu autopsie gëmuñu ko waaye day war na jóg ci suñu bopp les francs-maçons sont très bien armés ils sont très bien équipés te jekku nañ ñu jekku nañ jekk goo xam ne ak sénégalais bu ne sa bakkan mu ngi ci xottu leget sénégalais bu ne sa àdduna wóorutul il n'y a aucun Sénégalais qui est certain de son lendemain ba tax mbiru Abdou Karim mii bu leen ko woyefal bu leen ko woyefal Amna yeneen yu nar xew ak yeneen yu dik. parce que jekku nañu duñ ñu bàyyi mukk mukk tank, ñoom li ñu bëgg amuñu ko yàlla dogal nag ay djulit wara dund nous avons un devoir à combler sur terre et ce devoir est primordial un devoir bo xamne, Euh, sunu njabot ci la bok euh, sunu liggéey ci la bok euh, sunu askan ci la bok réew mi ci lañu bok sunu diine ci la bok tuba bi dem tay ba tàggale ñu ak l'islam tàggale ak mën ta pass nga nek ab julit ñun la sharia amul doko ko doxal ñu delu andi la code de la famille bo xamne amul ben araf bo ci fekk l'islam nangu ko oh, ñu dellu encore diviser ñu sous forme de secte une division bo xamné sous contrôle maçonnique nga xamné fop sénégalais nek lolu nekk loolu war na laa leer ab julli nag bu démé ba ñimi wu tax deug ab jullit bu démé ba alcorane ji wu ko laal ab jullit bu démé ba ñu dëddelé ko ak charia ab bu démé ba ay franc-maçon di bindal naan ko la république wala la laïcité wala la constitution ba jëm ci code de la famille lépp tubaab bi defal na te amuñ virgule boo xam dem na ci alxuraan sëriñ Mbàkke lim bind doy na sëkk ci jubbanti tout un sénégalais ba jubbanti waale képp ko xamné ne yaa ngi yëg sa yaram ab jullit nga wala nit nga kon buñ fa fabee lépp teg ko fële wuñ ko ubbi topp tubaab bi mu di bindali constitution din bindal ay wax din bindal yu ñàkk xorom te bokkuñu aada bokkuñu cosaan bokkuñu culture et je vous rappelle que nous avons rien de commun avec l'homme blanc oh, der bi nuroowul lekk gi bokkul gëm-gëm yi bokkul civilisation bi bokkul aada ji bokkul lekk gi ak naan gi bokkul ni ñuy sëye bokkul ni ñuy jële bokkul température yi bokkul végétation yi bokkul climat yi bokkul environnement yi bokkul yow nga ne nit ku ñuul nga te am ci lenn loo xam ne bokk ko ak tubaab bi tey ci sa xel mu gàtt nga ne li faj tubaab bi moo may faj defe naa ne euh, war nañ laa xoolaat kan dellu jàngite góor góorgóorlu yàlla suñ xel yi da awali lépp benn bunt képp am mooy xel mi jublu ci science kon toppe gii ñuy toppe mooy suñ musiba moo taxit lu xew leneen xew oh, damay del si Abdou Karim Abdou Karim Euh, nañ ci jóg taxaw dama ne lii daal Abdou Karim ab leçon lii daal Abdou Karim waroon naa tax la pour procureur de la République jóg waroon naa tax les services d'investigation jóg waroon naa tax les journalistes jóg ñu mën ci enquête yoo xam ne war na noo xam lu mu doon parce que nag le droit du savoir le droit du savoir dafa war ñëpp bu ko si américain yi bari doole am kàttan loo bëgg a xam da si la koy wax buñ ko xamul ni la may ma quarante-huit dana laa jox la ma xam kon kan bokk góorgóorlu jàppale Abdou Karim kenn ku ne nag ak say xalaat ak na ngay gisee cent millions yooyu Tunkara indi woon Tunkara indi euh, man de bu doon man euh, li ci doon sama xalaat danaa nangu xaalis ba pare boole ko ak gone yi ñu duma ko duma yu metti ba pare récupérer xaalis bi nag topp daara yi ci jàng daara yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal kenn ku ne ma daara ju ne ma coppati jox la daara ji ne ma coppati la jox la Marème fay xaalis mooy armam xaalis mooy wàppanam kon lu toll ne cent mille dollars boo ko ñoddee ci moom lu gàtt gàtt jël nga paaka ci moom nangu ko paaka ci moom xaaj woo ko boo ko baag moom mën na cee lottali mën na cee lottali Karim wala mu jël ko xeexanu ci ñun ñi nga xam ne nun doomu lay wër nun képp lay wër kon ci sama xalaati bopp war nañoo nangu xaalis ba pare duma tunkara duma yu métti ba mu wóor ne duma nañ ko mu dem tëdd ca wetam wopp moom itam bu noppee koppar yooyu ñu jël ko topp daara yi séddale leen ko daara ju ne am lu gàtt gàtt cent mille francs trois cent mille deux cent mille noonee lañ waroon a def bàyyi ab xaalis ci loxo Mariam Faye du fulla xaa bu jëlu leen ko ay saag la koy jënde séddale ko wala mu xeexee na ko noonu wala mu lottali ci Abdou Karim kon comme paaka la bu ñaw a ñëw bu bon a bon a bon dañ ko nangu ci ay loxoom waaye bu leen xalaat ne euh, mook tisit yeeyam wala ngeen bëgg a xalaat ne euh, mook corruption la déedéet ponkal mooy xeexal la nga jàpp ci loxo bi wañaar ko nangu ci moom cent millions cent millions yu waxuma njabootu Abdou Karim waxuma Abdou Karim laal ko waaye nun ñu ko duma ba nangu ko nan ko jël topp daara yi daara ju nekk mu jox sëriñ daara ba cent mille ne ko taxawal jënd jënd ko ay saako ceeb teg léegi ñu gis ko waaye du la ko baax nga di ko jël yow lépp ngeen def ko ab ceeb topp daara yi jox ko taal bi yelwaan ndax ñu toog ci kër yi mbir mi loolu dong la woon ah, may jéggal te ñaan jàmm jàmm lañ bëgg te bu soobee jàmm dana am tant que le Sénégal va de l'enfer nous sommes pour tourner ko mu ñëw ci woon bu baax wi dëgg dong lañ bëgg dëgg képp lañ bëgg ak naa feq nag ak di dóor ci kaw sëriñ si du tax nu daw ñun ay sëriñ leen comme ñoom ñu meññinu ñu meññinu ñoom ñoonu ngénte ñoom lañ ñu tuddee nu xam relation bi ci nekk kon képp ku ci amul xam-xam amoo xam-xam ba boo déggee cadre rek boo ko moomalee ab sëriñ ngir am support demal nga jàngi demal nga jàngi boo amee xam-xam ñëw lu nu wax nga weddi ko teg ci xam-xam doon wax rek weddi ko indi xam-xam boo nu gagné ñu ànd ak yow waaye yow protéger sa leader ak koo xam ne waxul dara ci sa leader nga bëgg koo jël di ko dóor ci kaw nit ñi da ngeen di sonal seen bopp waaye nun barka cheikhul xaddim duñ daw te giñ naa ci barka cheikhul xaddim ni sëñ Tuubaa bu dil si sonu jamono bala recevoir police et politicien yii nun activiste dañu recevoir